dafa am benn actualité euh, bi nga xamante ni jamono ji sénégalais yi ñu ngi ci yey di yàbbi je pense ni tamit ñu bari euh, koo ci laaj rek euh, dina ci wax li nga xamante ni moom mooy xalaatam di dossier bi nga xamante ni dégg nañ ko mun naa ni depuis bërki démb mooy Gabrielle Kane je pense que ni mandat d'arrêt bi nga xamante ni nii def nañ ko ko ban jàngat na ci am aussi. mandat d'arrêt bi de. am mm-hmm. ci benn jàngat bu may fierté ci Gabrielle Kane. ah bon. waaw. ci nan lan lan moo tax ma laaj la nga ni amoo ci kii lu dul fierté ci Gabrielle ka bi nga am ci moom. ndax dama xam ne doon yaay rek moo tax ñu def ko mandat mandat d'arrêt. Mhm. doon yaay képp. Mhm. képp ce que xam nga lan moo tax ñu def ko mandat wala xamoo ko. si xam naa ko. lan leen wax. ci diggante ak moom ak ki nga xamante moo nekk ex jëkkëram ci wàllu doom bi ñu juróon. mu andi ko Sénégal aussi jox ko nationalité loolu lañ ci am yaakaar que ni looloo tax ñu mandat dare ko. waa léegi. yaay juñ mandat dare ci lii yaay ju baax nga wala yaay ju bon. Mm-hmm. am na ñu jur sànni am na ñu jur dindi. dëgg na moom dafa bëgg doomam indi ko Sénégal. Mm-hmm. tubaab bi am xaalis jox Babacar Touré Kewelo dafa tubaab bi ci Mola moo gën la njëkk dem. ah moo laa na ko lii mbiri jigéen la te ci Sénégal la di yar doomam ci diine duma ci wax. Mhm. mu jox Babacar Touré vingt cinq millions. Mhm. Babacar Touré organisel ko presse ñuy yàq deram ngir tubaab bi mën a am droit ci doom ji parce que doom ji la mën a def jotaat Gabriel. xaalis bi tubaab bi moo ëpp alal. Mhm. ca lema gëm dëkk. moo fa ëpp alal. dëgg la. alal dëgg la. Mhm. léegi nag li ma mënta comprendre mooy nan la ay ponkali góor mën a nekkee ci réew. Mhm. di xeex jigéen ñaareel ba ab tubaabu français ñëw bëgg nangu doomi sénégalais ci biir senegal ñu danga ko def mandat ba di ci waxtaan di ko xas ak a xeeb. Mhm. man lii laa mënta nangu. lan moo ko jar. kan moo ko jar. ak pourquoi ñuy def lii man lii laa mënta nangu. lii moom dama ko bañ. d'accord dama ko bañ. Mhm. mais seex bi dafa naqari dafa métti te jaaduwul. ndeysaan mais seex bi avant dafa dafa métti jaaduwul. Mhm. jigéen jigéen la. Mhm. kañ la doon crime. waay. léegi tubaab bi bu yóbboo xale bi xam ngeen du nekk jullit. dëgg la. bu ko yóbboo du nekk halpulaar. mais buñ ko yaree ci halpulaar dina am aada. buñ ko yaree ci lislaam dina julli mu ngi dem dara mu ngi jàngi. quatre yi mu nekk Sénégal amul benn preuve bu ñu war a wane ne tubaab bi moo dundalee lii doomam amul. te tribunal France Gabriel daf ko fa gañe tribunalu Sénégal Gabriel gagné ko fa. Mhm. mu dajale yooyu yëpp defaat mandat d'arrêt sénégalais ànd ci ñoom Babacar Touré ak yenn sénégalais toog de live di xas Gabriel Kane ngir ne jamono ci ginnaaw. Mhm. bi Adji Sarr tuumaalee Ousmane Sonko moom Gabriel dafa àndoon ak Adji Sarr ñu mere ko ngir loolu képp. d' accord mais tamit seex euh, bi daa am fi nga xamante ne nii lu waral polémique bi wala boog lu waral coow li. bokk na ci po euh, maanaam li nga xamante ni posté na ko donc peut-être avant ñuy xam ni diggante boobu moom ak euh, ex jëkkëram ak ak seeni doom moom dafa génn ne carrément bu fekkee lu muy jàppale jigéen euh, moom bu jaree mu mu dugg ci prison bi loolu da ciy fier da ciy am fier moom est-ce que tamit lu ñu xamul que ni li waral affaire yi looloo tax coow li am. ah non être moom. Mm-hmm. balaa loolu xamutoon li xew exact. mais kon est ce que jaroon na muy génn di wax. Hmm? man est ce que jaroon na muy génn comme xamutoon li nga xamante ni moom lay wax je pense que ni coow lu bari mën nañoo jàpp que ni moom moom moo ko teg boppam. non dama ne. Mhm. peut-être xamutoon lii la. Mhm. xam nga information mën na ñëw ci yow. Mhm. plusieurs plainte lañu wax. mën na am benn plainte bi. lii la. d'accord benn plusieurs plainte. Hmm. waaye tubaab bi li ko ci dugal mooy doom ji mu am ak Gabriel Kane te ñett ñeenti at yi mu ko amee fii. Hmm. xale baa ngi bilingool mu ci programme. tout à mu ngay jàng. Hmm. am na na ni am na bon am na lépp. lu doom war a am am na ko. te tubaab bi mu ëppale Gabriel te xaalisam nekkul fi. dëgg la. léegi nag nan la sénégalais mun a seetaanee tubaab ñëw ba Sénégal jël doom ci koo xam ne tribunalu France daf fa daf fa perte. ak Babacar Touré ban intere lay am ci faral tubaab ci kaw Gabriel Kane. Mm-hmm. xaalis rek moo mën lu ne mais Mollah Morgun moom. Mm. bëgg naa àdduna xam ne bi ko tubaab bi contacté dafa bañ région yi moo tax. kon avant mi man maay Sénégal lu ma la waxut leerul. d'accord euh, kon su ma la déggee avant euh, loolu di ñëw njëkk nañ ko jox Mollah Morgun mu rejeté ko. waaw parce que benn xaritu Gabriel Kane bu mu xaritoo woon. Mm-hmm. mooy jiital tubaab bi di ko jox ay. piste yu mu war a waxee ba sonal Gabriel waxal ak lifer bi waxal ak nanga am na ay ñetti TikTok yoo xam ne dañ leen jàpp. Mhm. ci déformation contre Gabriel Kane. Mhm. doon wax ne wax leen ne cagala cagala nangam pour a ñëw nangu doomam ne daf koy yàq si lu nekk ñu waxal ko. Mhm. li coow li du tey de dafa éclaté nii parce que am na ñu ne loolu yi yàgg na mais moom euh, comme ni ko Sénégal am na ñenn ñi nga xamante ne nii nee nañ euh, Gabriel Kane rek jékki-jékki. maanaam kenn dootu ko dégg mu bëgg a créer buzz génn am na sax ñu ngi naan li nga xamante ne mi ngi koy wax dëgg pour mën a euh, maanaam duggaat wala boog nit ñi gën ko ràññee looloo tax mu mu def li ban jàngat si nga am ci loolu. waaw dañoo xamul rek. dañoo hmm. xamul ñàkk xam moom du dara. Hmm. te mbir su xewee ku ne ak sa idée am neen droit waxta wax seen xalaat loolu du problème. Hmm. mën nañu wax ne sax daf ko problème. problème bi kay mooy. Euh, lu nekk ci kanamu tribunal. loolu luñ mën a vérifier la mais ah. sénégalais du vérifier du laaj. Mm-hmm. moom da ngay wax moom mu wax moom li ko neex su comprendre ne ah xaw ma ne nii la demee. Mm-hmm. attaqué war la waa ji doomaraam la quoi. Mm-hmm. nangam nangam te moom du nangoon du mus a nangu ne moom ci boppam doomaraam la. Oh. d' accord euh, yaakaar naa loolu am na solo bu baax comme ni ma la ko waxee ak actualité la te yow je pense que ni euh, porteur de voix nga euh, fi nga xamante moom mooy ci réewum Sénégal rawatina nga nekk sax ba Amérique day baax aussi ñu war la laaj la li nga xamante moom mooy sa xalaat ci réew mi mais seex bi am na sa yenn soppe yi nekk fii ñi nga xamante ni ñoo la bëgg ñu ngi réclamer pour nga ñëw tabaski ci Sénégal. na leen mënta nekk. man duma xar xaar su ma ñëwee ñu def ma ni xaar benn ma dem Dumusin mbaa ñu dóor ma ba ma nooy. maa ngi jàmm mais mais mais seen soppi yooyu laaj que ni Ahmed Cissé dafa war a tabax ji Sénégal. ñooñu duñ su ma soppi. da nga da nga jàppal ñu ñu la jàmm ma bàyyi fii ma nekk si jàmm. <laughs> mais mais mais Ahmed Cissé sa réew ñoom ñu bëgg na nga ñëw nga ne nan la ñooñu bëgguñu la nan na bàyyi nga nekk sa réew. man de ñi ma bëgg yëpp xam ne ne maa ngi ci jàmm. ñi ma hmm. bëggul nag ñoo léegi su ma ñëwee Sénégal luñ may jox fuñ may dalal fu may nekk suñ ma jàppee nu ñuy def ngeen ma bàyyi fii kay ma nekk suma jàmm ñu may seetaan rek léegi maa ngi gën a leer gën a nice. waaw gën jëntal di sañse lu baax ñu bëgg ma delluwaat Sénégal teew ma. d'accord kon da nga jàpp que dañu la bëgg a andi Sénégal bëgg a jàmm. wax dëgg yàlla loolu laa gëm ku ma ko wax rek bloqué ko. ah. waaw ku wax ma ñëw Sénégal rek bloqué ko. d'accord <laughs> Abba Cissé vraiment Sénégal bi nga nekk dañ na bëgg. kon boo gëj jekk dem fenn foo xamante ne nii gëj nañ la gis moo tax rek ñu am yéene que ni nga ñëw kii mais nekkul ni euh, dañ la yéenee lu kii yu demee noonu. <laughs> waaw man loolu laa gëm. man euh. ku ma yéene Sénégal actuellement nii dëkk bi ni mu naqaree. Hmm. boroom alal yi am joxewuñ wuñ. Hmm. ña daan social socialatuñ. Hmm. nguur gi duñ maye duñ saraxe ñu ne jub jubal jubbanti. waaw dëkk bi wow kongu kongu dëgër. kenn mm-hmm. xamul fu mu jëm. Mm-hmm. man yàlla indi ma Amérique gii. Mm-hmm. <laughs> ma nekk ci jàmm nekk suma olala. waaw. <laughs> nga ne naa bàyyi foofu noonu yëpp ma ñëw Sénégal pour julli si Hmm. te ñooñu di la wax ne naa julli si kenn du ma si dagal bii. mais mais mais Ahmed Cissé dafa mel ni tamit euh, euh, daa mel ne daa am loo bëgg a daa mel ne li nga xamante ne moom la daa am lu lay xaar Sénégal boo gisee sawaroo ci tamit. den ma dàqee ma daw su ma toogoon den may tëj kaso ma daw luy problème. <laughs> waaw mais kon seex bi kon sa daw bi gars yi di wax yow da nga koy dëgg la kay dama daw de. dañ ko fukk mu daw guddi laa daw daw ma sa bëccëg. Hmm. Hmm, guddi. d' accord. yàlla ji yàlla ji di taw. Ah. génn Sénégal. <laughs> ma taw ak kii bi rek jël say bagage ma dem Nigéria foofu doyit ma ñëw Amérique tëdd nag ci dëkk bu mag bi dëkk bu sell bi. jàpp sa njaamu. waaw lu waay wax ma dugg ci. jeex na mais mais Akhlé Cissé dafa am sa produit yi nga daan jaay. am na laa buri. de parce que ni yaakaar nañ ni. bi nga fi nekkee lan daa gën a dégg tur boobu mais depuis boobu ñi laaj ba xam fan la nekk ba xam euh, li nga xamante ni moom mooy euh, promo bi wala communication bi ñu bari dégg tur la ci nga ciy wax lu dul bari lu dul euh, dara xew senegal rek nga taxaw wax ci te bu njëkk ba naam daan nga wax li xew mais du sa li nga liggéey ci ci li nga daan nekk aussi lan ngay wax ci loolu. dama gis lu góob xaalis rek na ci xam nga man nitu intérêt la. Hmm. Mhm. mais seex bi Andra Boury amoon na ay coow de fii ci Sénégal kooku musaan jox moom bu ko bu ko utiliser xam li ci nekk. léegi ñëwaat na sax dinaa ko joxaat doole ba mu amoon. mais temps bi lan moo tax déggaatuñ ko. ah. lan moo tax déggaatuñ ko depuis bi nga nekkee bi bi nga génnee Sénégal. non parce que maa ngi dawoon man maa doon bopp bi. foog nga hmm. am ñoo wóolu dekkoo fa foog nga am noo defaree jooyante taxaw loo bëgg mu dem ci kanam des koy organise hmm. loolu la rek te man du may defantu waa man su ma defee dañuy xam ne def naa su ma waxee ñu xam ne wax naa. Hmm. ñu bari dana amatoo waaw ñu bari dana say produit nga amatoo nga amoon doxatul moom moo tax léegi Sénégal kaa bu am rek dañ ciy gis Ahmed Cissé. mën na nekk de man de bu dee kaay yi mu may teral mën na ci de man aw man aw benn problème rey nit rek laa mënta def ngir xaalis donc sax su ma gisee jaay. <laughs> d' accord euh, Cheikh Ahmed Cissé vraiment amoon naa mbégte dina daal ci actualité yi nga xamante ne nii jot nañ ko waxtaane euh, je pense ni am na solo bu baax a baax am na. yenn leeral yi nga xamante ne nii euh, xaw na lëñbët ci xelu sénégalais yi je pense que leeral nga ko man tey dégg naa ci loo xamante ne nii euh, ci yenn actualité yu bari yoo xamante ni ni ma ko xamalee je pense que ni xaw ma ko woon noonu mi man ak samay moroom euh, di la wax ka ñu daal amoon naa mbégte di la dalal bu baax a baax ci lu néew lu ñu may ci sa temps ñu waxtaan ak yow Cheikh bi. maa ngi lay gërëm Abdou. Mhm. di nuyu seen patron. Mhm. di nuyu ñu lay déglu ñëpp. Mm-hmm. yal na yàlla def leen jàmm bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. allahumma amiin. jërëjëf. jërëjëf. Ah, jërë ngeen jëf suñu mbokk internetu ah, Feeling Dakar TV comme ni leen ko waxoon à chaque fois ndegte la ñu koy dalal. Euh, mu nekk nit koo xamante ne nii euh, depuis maak moom sama relation ak moom moom yàgg na dara yàqu ko aussi ba comme ni mu ko waxee ñu bari ñu ngi koy woo mais peut-être euh, relation bu ma am ak moom moom moo tax mu nangul ma accepté li nga xamante ni moom mooy émission bi rawatina heure bi di ko ñaanal gudd fan ak wér lépp li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom defal ko ko ci barke Seydina Mohamed di jaajëfal ki nga xamante ni moo nekk Cheikh Anta moo nekkoon ci régie bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi di jox dig daje ak keneen incha allah jaay jëf.